bo amé lo ragal bëgg ca mucc fabal qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas no xam da nga leen di jang ba da nga leen di bind waye lepp lo ragal bëgg ca mucc mom ak nasi man nga ca jaari ba yalla musal la ca mo xam nak da nga leen di jang am na nga leen di bind safara mo bëgg yàlla aaral la ko ba mu mucc dara bañ caa dal lu la gën a lut fabal ayatul kursi bo boo bëggee aar sa bopp mbaa aar keneen mbaa leneen fabal rek ayatul kursi yi moo xam da nga koy jàng moo xam da nga koy bind saafara daa mel bind gi mën naa doon bind naan mën naa doon bind takk yi mu wax yépp muy faatiha ak fàllaxeek naasi ak kursiyu lu ci nekk dane xiraatan aw xattan jàng ak bind bind gi daa mel ni mën naa doon saafara naan mën naa doon takk ba tey ci yaram mbaa sax takk ko ci la nga bëgg aar rek moo xam day kër wala day bitik mbaa day leneen soo bëggee yàlla may la wërsëg ba bo amé ay bor fay ko na nga saxo guddu gu nga jang suratul waqiya bala nga teud lolu señ bi denkaane nak ay yoon yoon ci denkaane yi dañé won nak boy jang sar saar da nga ci and ko ak ko selal ci wax ci am wërsëg lépp am na ci doone rek naa ko jàng seet ba xam liñ ci wax am naam amut ngay ànd ak dëggu ak gëm liñ ci wax